ay ca jërë ngeen jëf mbokki internet yi nga xam ne yéenay bàyyi xel seen bii di Fekke TV ak Diarra Pro Events ñi ngi amaat mbégte bu baax a baax ak contentement di jàkkaarloo waat ak yéen comme ni leen koy toppale ci wàllu làmb yaakaar naa ne ki ma dalal xale la boo xam ni yaakaar naa ne naam ci làmbu nañ ko bàyyi xel xale bi ma dalal tey yaakaar naa ne icône la ci fi gox bi mu nekk xale bi ma dalal tey c'est un prolier nee naa leen bu waxee rek nit ñi dañ koy dégg ndaanaan la Onde le Fou laa dalal dox fi sama yaay dëgër mu moom laa dalal tey ñoo war a waxtaanee ak moom ci làmb Onde ñoo ngi lay di la ziar war a waxtaanee tamit ci li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi Onde ñoo ngi lay nuyu. waaw ngi leen fay euh, Makan di nuyu waa Sénégal yëpp waaw su ma lim national comme d'habitude Laye Capo Chérif Diène Moussa Yande Abdou Sembène Karbala suma xarit suma doomu nday Karbala suma seex Karbala borom seeraas borom une te bu yaramam tàngee mu jaay la trente secondes dans la marmite makan Karbala nee na ma bu ma la jaayee yàpp une minute lay def. amul carbonate amul carbonate amul vinaigre waaw kookooy Karbala maa ngi bëggee suma yaay Ndey Mari bu sëñ Fallou sama papa IPD sama papa Gorgui Diop sama yaay Aminta Dramé Marie suma yaay ginnaaw raay maa ngi nuyu Sénégal yëpp di ñaanal suma yaay tey la am cinquant ans ci biir suuf waaw sama yaay maa ngi koy ñaanal yàlla na suufu njar oyof ci kawam misis waaw rakku soxna xadi rakku ñaay géy ah rakku yaa ayda ak yaa sagar di ko wax ummi yow waxal yaa sagar ak yaa ayda ñu may ma ndox ndax mu bëre waaw di ñaanal di nuyu tamit suma yaay soxna nafi fi fàllu fàll soxna nafi borom jinne soxna na fi yaayu ondu fu soxna na fi mu baax mi moom tamit daf may ñaanal ba pare yëkkati xaalis bu bari jox ma waaw maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp tamit bëggee nañ ñëpp. jërë ngeen jëf yaakaar naa ne foofu laay tarxiise demaale ba li nga xam ne moom moo di Touba nuyu kenn koo xam te ni sama xarit la muy Serigne Samba Ndour nga xam ne daf lay ñaanal ba pare ñaagal la waaye ba tey fi may duggee tay la ondul yaay yooyu ondul yaay ondul la fu tay la am 5 ci biir suuf ñoo ngi koy ñaanal suñu borom xarit ko àjjana ci àjjanay firdawsi kum fa fekk ak ku ko fa fekk ñu ngi koy ñaanal ond ñoo ngi ñaanal sa yaay mu fekk ko fii mu xippee ji àjjanay firdawsi waaye ond ba tey dañuy ñëw ci tolluwaayu réew mi ak réew mi xam ne noonu la yëngoo ndax démb yaakaar naa ne réew mi tàng trop. waa réew mi moom gëj naa sedd te ñu koy yëngal ñëpp mooy ñi nga xam ne ñooy politiciens yi politiciens yi mooy lan Macky Sall Ousmane Sonko waaw man nag dama ne woon duma ci wax parce que daa am sam benn xarit boo xam ne ñu koy wax Karbala ak caam caam borom daaru Thiam borom boobu jof waaw maa ngi koy nuyu bu wér tamit Omar Thiam waaw dañ ne ma Ondo ñun ñu ngay wax quoi ci yenn affaires yi ndax ñu déggee yenn affaires yi après ci yow wala ñu gis ko daf ñuy metti quoi waaw kon ñooñu da leen di sedd cër mais nag toll na foo xam ne nii bu la yàlla mayee tuuti kàddu nit ñi di la déglu foog ngay wax quoi ndax comme que ay nit ñoo xam ne nii defuñu dara ci Sénégal ñoo nekk ay influenceur bay mën a influencer jeunesse bi ñuy génn di def naka sudul noonu. kon sàkkamtuma ñun ñi nga xam ne même bu fekkee ni benn affaire la ñun def nañ ko ci Sénégal quoi réew mi dafa toll foo xam ne nii ñun dañ naan ñu dañoo am jeunesse bu conscient mais jeunesse bu inconscient laay gis chaque jour parce que yow bu fekkee ni jeunesse bu conscient nga doo fekk meeru jaaykatu table bi nga xam ni mi ngi jaay table nga jël table am boobu noonu laal ko ci tali bi sotti ci essence taal tey maire boobu noonu moom ci wàllu boppam xam nga table bi ñaata la ko jëndee ak ñaata yoon la dajale pour am pour jënd table man sama yaay da doon jaay mburu mi mbu kilo bu nekk bi ngi ciy am juróomi dërëm tey table am boobu ñaata la war a def pour pour pour jël juróom yooyu teg ko ci tey bu bett pertee benn kilo ñaata kilo la war a fay tey boo demee syndicat ñaata maire yi nga gis noonu ñuy taal seen table ñoom ñoo fay xëy te seen paan yi liñ fay am ci la ñuy yor seen kër yi sa comprendre nga nga dem marché poisson marché poisson noonu dem nga gis réew mi kenn xëyul Sénégal nga xam ni ñëpp xam nañ ni heure boo xëyee dépassé ngay daw li ngay añee moom ngay tibb reer dëkk bi dara doxul metti na tey dëgg la Sonko dañ kaa tooñ wala tooñuñu ko ñun je ne suis pas ñun duñu ay ay juriste mhm. man du ma juriste man xaw ma yoon mhm. du ma atte mënuma atte mhm. mais li ma li ma li ma gis mun koo visionné mun koo wax ci suma làmmiñ mooy liy am ñaaw na trop Ousmane Sonko yow réew mi desee la tuñ la dara yow même boo nekkulee président Sénégal desee la tuñ la dara parce que képp ku fi mës nekk politicien boo waxee dañ naan du waxkatu dëgg ba pare lu ñu jëlee ci sa poche rek la ñuy xool yow Ousmane Sonko da ngaa ñëw sénégalais yi jël di dajale seen xaalis di la ko jox kenn nanguwul kenn laal la sa projet ak Adji Sarr ñu ni kenn du la laal pourtant am na njiitu kudd bi nan la tuddati ñu ngi ko jiiñ viol fi projet bu kii moom dañ ko renvoyé bëri na ay nit ñoo xam ne nii dañ leen a jiiñ viol te tey yow li nga li li niñ la taxawee nii taxawoo wuñ la ko sa projet yaa ngi Mame Mbaye Niang gis nga ni mu demee kenn du la laal kenn du la tudd ku tudd Ousmane Sonko ci réseaux sociaux yi sax ñu saaga la mais nag pour man des fois yërmande dafa war di daw quoi waaw ndax nit bu la bëggee des fois da koy ameel àq. mais mu tamit est-ce que du ni ko gars yi jël see tamit ci image Sénégal. ci nit koo xam te ne nañ moo bëgg doon président est rafet na. waaw daa am lu jiitu loolu quoi. mooy communication man man man Ousmane Sonko ma sañoon. mu changer communication. parce que des fois da ngay gis ni dafa dafa violent. communication bi dafa violent quoi. te bëri na ñoo xam ne nii am na ñoo xam ne xamuñu Ousmane Sonko moo tooñ wala tooñuñu boo doon laajoon la xew duñ la ko wax xamuñu ko mm-hmm. mais bëgguñu ko laal Ousmane Sonko mm-hmm. am na ñoo xam ne xam nañ li xew mm-hmm. mais ñoom nekku président Ousmane Sonko daf leen a arrangé am am na ñoo xam ne nii nekku président Ousmane Sonko daf leen a arrangé am na ñoo xam ne salteel moom moo leen tax a jóg mooy tey agressé sàcc wala leneen ak leneen li ciy laxasu dafa bari mais moom ci wàllu boppam ñu ngi koy ñaan quoi. a ah, communication metti na torop communication Ousmane Sonko metti na trop te tey dëkk bi dañoo soxla stabilité ndax dëkk bi dafa metti ñaareel bi mooy a ah, toll nañ foo xam ne kenn mënatul wax ndax ku saaga ñu ne Ousmane Sonko moom moo la saagaloo te amaana sax mën naa bañ a demee noonu. ku wax kilifa diine yu ñaaw moom daa am benn étiquette boo xam ni dañ ko koo bëgg a takkal quoi. ban. mooy tey waxkatu yu ñaaw yëpp wala saagakat yeeg wala xeexkat yëpp ci Ousmane Sonko lañu féete boo nee tey bu leen xeex dañ naan ci Macky Sall nga féete. voilà ci gën a jaaxal mooy nit ki nga xam ne dañu tuur bëtam am ay blessé ñi am si ay gaañu gaañu tey loolu di dénk. te mu jaral ko te te te yow Ousmane Sonko moom moo ko jaral loolu. quatorze personnes yi dee nag. ah fàtte quatorze personnes yi dee. ñii ñu dagg seen loxo nag. ñi ñi ci ñàkk seen liggéey nag. Auchan yi ñuy taal ay doomu Sénégal ñoom ñooy jël seen xaalis dem dugal ginaar ñi dem dugal leneen ak leneen ñu yóbbu ko ci Auchan bi exposé ko fa di ko fa jaay même bu ko tubaab moomee doo fekk benn doomu tubaab bu fay liggéey station yi nii doo fa fekk benn doomu tubaab bu fay liggéey bis yi ñu taal benn biis bu ci nekk jar na cent million ñun ñoo ci yéeg policiers yi maa ngi nuyu tamit sama xaritu policiers yi am naa xaritu policier Samba Ndiaye ah police ginnaaw raay affecté nañ ko kees wës maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit ay maalaw yi nekkoon police su ginnaaw raay police yëpp man may dajeeg police mu mu mu mu téye ma bëreeg man foo man leneen ak leneen te ñun ñoo bokk ndey ñoo bokku baay ñun ku ci nekk am nga mbokk boo xam ne nii police la wala xarit boo xam ne nii police la des fois tamit noonu laay dajeeg police mu tooñ ma ci làmb wala ci benn xew-xew brutaliser ma dàq ma dégager ma mais damay xam ne liggéeyam moom moo laaj loolu. te moom liñ koy fay wallaahi azim policier bi liñ koy fay moom ci wàllu boppam man ba ma ko bañoon benn fan ni ma génnal xeex ak askan bi du ma ko seen salaire mais ñoom seen salaire taxul ñoom ñuy def amour moom moo tax ñuy def ak fexe dëkk bi nu mu nekkee ci stabilité ñoom bu ñu sañoon du ñu dóor kenn bal mais tamit télé yi ak yenn site internet yi war nañ ñoo mën a dimbali ci di ñu wan population buy dàq police police di daw loolu kenn rafetlu ko loolu dafa ñaaw loolu loo gis mu am ci respect mënatul am ci diggante pour civil ak ak ak homme de tenue loolu mënul nekk mënatul nekk parce que yow ki nga nit ku ñuul pour mu respecter la foog mu ragal la mais bu ñu demee bay jël yëre police di ko taal di ko def nii moom mooy cay man damaa jàpp ne da ngaa jël drapeau Sénégal rek taal ko wala nga jël xaalis taal ko parce que ñooñu ñoo ñoo yor suñu kaaraange kon ñun nañu delloo si waat suñu xel Ousmane Sonko ak Macky sàll ñoom ñaar loolu mun a ñàkk ci seen diggante parce que kii daa bëgg pouvoir kii bëgg pouvoir Macky sàll moom ci wàllu boppam tamit mu xam ni réew mi desee la tuñ ko dara. Macky sàll réew mi desee la tuñ ko dara dafa ñëw ne Ablaye Wade day imposer doomam. teg comme ni Ousmane Sonko demee nii ñëpp taxawu ko ñu fexe ba fal ko moom tamit kenn du wax ci wàllu bilan Macky sàll liggéeyul wala lii wala lële. jéem naa wàññi dund gi jéem naa wàññi location bi jéem naa def leneen ak leneen waaw mais Sénégal xam nga ñun yërmande moo amatul ci suñu diggante parce que yow sànq bi ngay ñëw gis nga ko benn gel boo xam ne nii maa moom ñoo dëkk. paanam de la fel. waaw paanam nga fel paan bi toj bu njëkkoon kersa boobu da daan am wala yow. ne daf ma koy fay te. dem kaw dikk soxna si poñe ma ne damay koy fay paanam boobu ma toj wala duma dem te ondu la fu laa doon seet. yor oto di virage daal di mbëkk paan bi paan bi toj mu génn poñi ma ne bu ma du ma dem te fayu ko. waaw léegi te kooku bu njëkkoon dañ doon wax naan moom boo mësaan a toj sax naan sama càmmiñ. Mhm. nga tojal nga doon seet si ba yàqal ma wala dara. waaw xam nga man bu ma ko mësaan a fekk tamit ci ci ci ay problème dañ naan càmmiñam du ko romee mais yooyu yëpp ay jikko yu yu yàqu la yu soppeeku la. nga yaakaar lan moo yàq jikko yi. ñàkk bokk na ci. Mhm. parce que sénégalais soxoruñu dañoo ñàkk quoi ñu bëri da ngay gis affaire animatisme bi am ni ñàkk moom moo ko gën a waral quoi ndax ñàkk waykat bi danaan ñàkk bon ñàkk bon ci waaju baax day tas këram xolam du neex mhm. waaw ñàkk dina tax nga teggi yoon ya nga daan jaar xam nga ay affaire yu bëri kon yonent bi daf doon wax naan ñàkk moom bu doon nit la dama koy rendi comme que yonent bi moom moo mënoon di muslu ci loolu waaw kon nga li génn manifesta li xale yi génn toj li xale yi nga yaakaar ne ñàkk tamit taxut ñu poussé poussé wu leen waa am na ñoo xam ne nii boo leen laajoon li tax ñuy génn di toj xamuñu ko xamuñu bitu xeex bi dañoo jàpp ni Ousmane Sonko dañ koo bëgg a faagaagal lañ ñii dañoo jàpp ni Ousmane Sonko dañ ko bañ bëgg a yóbbu troisième mandat am na ñoo xam ne nag dañoo bon sàcc moo leen fa yóbbu am na ñoo xam ne dañ naan Macky daa bëgg def troisième mandat am na ñoo xam ne ma riirandoo lañ. Mm-hmm. am na ñoo xam ne xamuñu lan moo xew. Mm-hmm. ba pare daa am nouvelle génération boo xam ne ñu ngi juddu di ñëw daa am ñoo xam ni nouvelle génération boo xam ne ni ñu ngi juddu di ñëw mais ñoom xamuñu lan moo xew. est comprendre nga mm-hmm. ñoom chaque jour li ñuy gis ci tele bi wala li ñuy gis ci kii yi rek pour ñoom. loolu moom moo baax quoi te suñu télé yi tamit ak site internet yeeg kii amuñu njëriñ parce que da ngay gis benn nit koo xam ne nii du dara ñu dëpp la micro Sénégal dëkk bu neex a siiwee la. nga ne day am loo xam te ne dañ koy yàq image ndax télé amatuñu débat wu politique amatuñu débat ñuy wane lu baax maam débat moo am wane lu ñaaw. non ba ci théâtre yi teg sax ba ci seen leneen lépp théâtre yi da ngay gis sexe lañ lay wan mooy xale yi tey li ñuy njëkk a xam mooy sex tey ñun dañoo dem.